Mali Diabasora da dina am liberté provisoire maanaam bàyyib ndëgandikoo bile influenceuse malienne nekk ci réseaux sociaux yi di Diabasora ñu placé woon ko sous mandat de dépôt ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai ba ñu génn ci àllarba bi nag da dinay am ab liberté provisoire Kim Kardashian bu Mali daal dinay génn ci jafe-jafe yi mu nekkoon ci àllarba bi am na li nga xamante ne mooy liberté provisoire gannaaw ñetti semaine yoo xamante ne nag tëj nañ ko fële ca boole rakkam bu jigéen di Moussou Sora moo xam xamle bile xibaar jëm ci bay ki nga xamante ne moom la ñuy woowee ab vedette ci biir réseaux sociaux yi policier yu cinquième arrondissement bu Bamako ñoo ko tegoon loxo ci ndigalu procureur bu tribunal bu grande instance bu commune 6 li ñu ko doon toppee nag du lenn lu dul ay saaga yoo xamante ne da ko daal fësal jaarale ko ci ab système d'information yooyu kàddu yu ñaaw mu daal di koy fësal ci ab enregistrement audio boo xamante ne nag daal dinañ koy partagé wasaare ko ci réseaux sociaux yi yile kàddu la Jabo Soxna daal di a def ko ci boobee audio bu fekkente ne nag li nga yor doxul jarul lu dul ñaari dërëm man li ma yor ay milliards lay jar man la vedette bii di Diaba Sora maay sa gént bi gën a bon mu nekk nag ay kàddu yoo xamante ne képp koo xamante ne déglu nga bile enregistrement da ngay waaru ci li nga xamante ne nag yaa ngi koy dégg bile pratique nag jamono ji loi numéro 2019 056 bu juróomi fan ci weeru décembre atum 2019 ñu jagleel ko xeex wàllum cybercriminalité ak li nga xamante ne moom mooy article 2 dañuy naqarlu lépp loo xamante ni da ngay infraction ñu jaarale ko ci li nga xamante ne moom mooy xarale yu yees yi loole ñu amal ko fële ci république bu Mali kon nag képp ko xamante ne def nga infraction ci wàllum espace maanaam ñaawteef wala sax ay délit yi la daan dañ koy teg ci sag ndodd moo xam nga def ko fépp ci diwaanu Mali ci génnam gu mujj ba muy janoo taskatu xabaar yi procureur bu commune 6 bu district bu Bamako di Idrissa Touré li mu xam ne mooy ni ñuy jëfandikoo lii di réseaux sociaux yi warul justifier li nga xamante ne nag moom mooy ñàkkug valeur